voilà sama gars yi maa ngi leen di ziar vous pouvez maintenant ajouter jusqu'à trois invités à diffusion ok sama gars yi maa ngi leen di ziar leen di nuyu bu baax a baax a baax leen di nuyu bu baax a baax a baax donc heure bu baax bi jot na dimanche donc voilà di jéggalu di xaar sama gars yi yegg si ma ne di xaar sama gars yi donc yegg si gars yi ma xaal leen ngeen dugg si leen di ziar bu baax a baax gars yi maa leen di ziar maa leen di ziar tey nag defe naa dañuy ngénte tey coupe bi kan bi tey lañ koy euh, tey lañ koy tey leen koy kii tey leen koy ngénte gis naa gaa yi ci internet bi Facebook baa ngi baa ngi jax gaa yi ñi ngi teg seeni laax depuis ce matin gars yi ñu ngi teg seeni laax depuis ce matin nee na ñu tey la ngénte suñu coupe d'Afrique bi des nations macha allah voilà kon nag gars yi bon pour ñii di yónnee message euh, voilà WhatsApp en général j'aime bien su ma démarrer live ma démarrer sans mu am interruption sans mu am ay blanc j'espère que vous allez comprendre voilà pour ñi may waxtaanal ci suuf voilà donc on on, on va démarrer euh, directement gars yi maa ngi leen di ziar non ça ça je le prendrai après je mettrai ça après gars yi kon maa ngi leen di ziar leen di nuyu bu baax a baax di jéggalu dimanche passé mu ñu woon ñëw parce que c'était la finale euh, da ngay depuis samedi ci guddi gi les gens tout le monde y avait la ferveur xam nga gars yi kenn xalaatu lu dul finale bi euh, c'était c'était extraordinaire dimanche franchement je me sentais pas faire un live vraiment nañ waxante dëgg toog fii di sourire rek ñoom seen c'était trop stressant ñu ñëpp amoon pression tension bi stress bi donc mu ngi noonu donc mu moon toog fi vraiment j'avais pas la naan maa ngi toog fi naan maa ngi live donc euh, voilà yàlla euh, may nañu sutura xaw ma nu ngi dundee nag final bi waaye man de faal ba heure bu baax ba jotee ma ne ko ba heure bu baax ba jotee ndax TMC da ko doon def en direct nu ma def daal moom mooy dugg ca benn euh, sama bureau ba toog fa nag naan maa ngi jéem a seetaan seetaan lu Netflix benn film dara safuma ca ndax aw ma woon stressé naa ba nga xam ne mënu moon toog di xool du final bi mënu woon nekk c'était trop dur donc maa ngi ca beneen bureau ba daal ne sama jëkkër bugguma nag nga ubbi buntu bi tànk dégguma on est champion bu dee ñëw dañoo dañoo dóor bu ubbi buntu bi ma ne ko bu ubbi bunt bi de bàyyi ma ca biir rek duma xool réseaux sociaux yi duma xool dara benn site internet pendant deux jours voilà man daal bàyyi ma ci biir rek boo ne ubbeet boo ne koŋ-koŋ ubbi bunt bi rek man ni ma bëgg a dégg moom mooy mat yi dem gagné nañ coupe bi Sénégal gagné na coupe bi mu ne ma d'accord c'était ça sa deal man daal damaa toog toog lu mu yàgg rek su ma ko déggee mu yuuxu ak ñoom seen rek euh, début début match ba euh, euh, maanaam penalty ba ma delluwaat ci bureau ba toog ñëwul ubbi bunt bi ma ne kon penalty bi kon xanaa dafa takk suuf bëgguma xam man daal damaa jékki-jékki rek. mu ubbi buntu bi may xaar victoire mu ne ma prolongation ma ne ko dellul gaaw bul duggaat bul duggaat ci biir bureau bi man daal dama jékki-jékki rek sama xel nag ma daal di très sincèrement je vous la vérité j'étais bañ ma ne tir au but ma ne c'est fini on a perdu la coupe parce que l'Égypte c'est son point fort te ñoom lépp lu ñu bëggoon mooy yóbbuñu yóbbuñu tir au but moom mooy maanaam suñu xel bi nañ ci génnee coupe bi man sama bopp maa ngi ca biir film ba ba tey Netflix waaye sama xol tàng na nekkuma ci biir film bi maanaam man daal damaa jékki-jékki rek am ma grande surprise la mun a toog toog bunt bi ne ma vous champion ma ne ko waxal waay mu ne ma vous champion deux fois ma damaa dugg ci biir euh, salle rek sama tànk yi sama yaram bi yëpp may lox tànk yi bañ ma di sukk sukk laa def du xool tele bi. gis ñoom maa ne xale yee ñëppay di tëb ma ne moo ne dëgg la di on est champion yuuxu ba ba ma yuuxu. ah yuuxu ba ma yuuxu yuuxu ba faal yuuxu fa ma dëkk nag ndeysaan amul sénégalais loolu moo metti mais yuuxu ba ma yuuxu ma toog ba guddi gi ba ba ma commencé digérer affaire bi xoolaat tiiroo bi yu nag ci laa xam ne ndam li maa ngi seetaan benn sëru Cheikhou Kouyaté ci benn interview mu ngi koy wax et elle a parfaitement raison gis ngeen coupe bi euh, mbégte bu mu jox peuple sénégalais dina ce serait génial qu'on gagne d'autres ñu gën ñu respecter Ce serait bien pour le Sénégal, pour le football, pour le sport, pour le Sénégal de manière générale. Mais bi, première fois bi, ak nim ñu def, non ce sera unique pour toujours. Sama xel lu mu njëkk dem moom mooy euh, dafa am sama ami d'enfance maa ngi leen koy maa leen nuyu bu baax a baax la famille Guèye bi nekk HLM 5 seen benn frère dafa génn àdduna bi muy génn àdduna si seen bi benn match la euh, en 2002 Sénégal ak Cameroun à chaque fois bu ñu daan dem Coupe buñ naan seetaan match Sénégal maak moom ñoo ko doon seetaan ci biir kër gi mais jour boobu dama demoon ak Jules Junior këram laa ko doon seetaanee ak euh, avec sa femme et d'autres amis jour boobu match bi stress bi tax na ba euh, ndeysaan euh, dafa mujje décédé parce qu'il a eu un ci biir match bi si la amee malaise ba si la décédé man après ci guddi gi lañ ma yëgal décès donc moo taxoon man après après 2002 Euh, mun naa ne dama ak 86 2002 ñoom El Hadj ñoom ñoo ñu réconcilier waat ak football bi mais après 2002 ak décès boobu dama jëloon tuuti distance ak football bi dama ne ñun c'est comme si ñun ñun on était maudits en fait ñun Sénégal je suis désolée de le dire comme ça. 2019 euh, dem naa Paris pour seetaan la finale finale Sénégal Algérie beneen déception moo tax CAN bi très sincèrement j'étais pas trop accrochée ak kaan bi. début début bi et tout ça c'est un début difficile gis naa gars yi ku nekk ngi critiquer di critiquer ma gën a jëlaat distance ak ak CAN mais ba ñu qualifié nag quart de finale pour dem demi-finale laa nag j'ai vu la ferveur dugg ci réseaux sociaux yi sénégalais yi li ma gënoon impressionné mooy sénégalais yi ni ngeen amee yàqin ni coupe bi day ñëw Sénégal man ko indi coupe bi man loolu da ngeen dem ba da ngeen ma joxaat beneen espoir donc je me suis je me suis dit j'ai à vraiment à y croire vraiment ay y croire donc euh, ma seetaan demi-finale bi vers la fin parce que mënu ma seetaan tout un match mënutuma ko vers la fin j'ai vu la victoire du Sénégal finale bi nag ma jël yenu mbir mi nag yenu xew mi kon nag gars yi ñu ngi remercier l'équipe nationale du Sénégal ni ko ñëpp waxee der seetaan na émission jàkkaarloo euh, ni ko ñëpp waxee euh, c'est des joueurs yi nga xamante ne nii ñoom si seen bopp ku nekk ak sa sa attitude seen comportement da ngay xam ne ñii ils sont bien éduqués da xam ne ñi c'est de vrais patriotes y a des y a des joueurs qui m'ont touché profondément ñoom Abdou Diallo ñoom ñoom ñoom ñoom Cheikhou Kouyaté euh, ñoom ñëpp en fait Sadio Mané il est il est extraordinaire c'est-à-dire c'est ñoom ñoom ku ci nekk rek nit en tant que nit ki rek dañoo bëggable vraiment équipe bu extraordinaire xale yi les jeunes lii mooy wane ne ñun Sénégal il faut ñu booloo nekk benn xol yi nekk benn dañ daan dem ni coupe du monde wala coupe d'Afrique lu ñuy wax moom mooy ah am na da ñi nga xamante ne ñu ngi ñaan pour que Sénégal toog parce que ndamu Sénégal ñoom bëgguñu ko mais bii yoon j'ai vu que tout le monde était derrière l'équipe Sénégal ñuy xeex bu ñu war xeex mais nañu am loo xamante ne ni ñu ñëpp fa la ñuy booloo nekk benn yëkkatindoo dóorandoo te lii wane na ne bu ñu mànkoo rek maanaam indi ndam li bu ñuy mànkoo di am ndam kon nag vraiment euh, joueurs yi ak seeni famille lii ngeen ñu bëggalee suñu xol yal na leen yàlla suturaal euh, bégal noonu seen seen seen xol yàlla seen carrière leen lépp leer vraiment bégal ngeen ñu bégal ngeen ñu bég boo xamante ne ni vous nous avez rendu fiers te on sentait que vous la voulez cette coupe là vraiment donc ñu ngi ñu ngi aussi féliciter aussi le président de la République encore une fois parce que voilà c'est lui le président de la République qu'on le veuille ou non xam nga noom ni ko xale yi di waxee ci internet bi et tout Euh, ñu ci bëri jaar nañ fi chef d'état yu bëri bëggoon nañ ko amuñu ko euh, joueur yu bëri jaar nañ fi bëggoon nañ ko euh, indil Sénégal amuñu ko kon nag ñu ngi donc féliciter également le chef de l'État on a écouté le ministre Matar Ba ma di ko nuyu également au passage mm, benn mun naa ne miinu ko mais en 2014 j'ai eu à une émission waroon ko invité ci biir plateau bi mais son humilité sa disponibilité sa je je je salue également ses comportements am moom également son humilité moom monsieur euh, Matar Ba ministre des des sports dafa yebal ay nit ci biir émission boobule euh, di aussi nuyu aussi euh, Augustin Senghor ñoo bokkoon Gorée parce que j'ai habité également à Gorée di nuyu également Aliou Cissé ay waaye suñu Aliou Cissé waaye j'ai toujours cru en toi et tu le sais Aliou Cissé depuis 2014 Aliou Cissé Aliou Cissé je vous dis juste benn anecdote boobu maa ngi dëkk Gorée te je pense que Maha Diop bu nekk Gorée ma jotaay bu France Inter RFI ndaxte jour boobu maa ngi woon ci guddi googu kër Augustin Senghor di war a waxtaan ak euh, le maire de Gorée parce que moom mooy aussi le maire de Gorée ñuy waxtaan bien avant loolu dama rencontré woon euh, Aliou Cissé aux Almadies je pense tellement on a on a discuté j'ai vu j'ai vu tellement euh, un homme tellement respectueux tellement courtois positif mais nga nga nga gis ko en tant que capitaine fulla fayda rigueur professionnalisme et jamono jooju bu ngeen fàttalikoo ñu bëri ñu ngi doon wax naan pourquoi duñu tester un entraîneur sénégalais pourquoi pas un local c'était ça le débat quand j'étais avec Augustin Senghor xaw ma dara ci football hein mais je parlais avec le cœur j'étais avec du monde je lui dis mais Augustin pourquoi yéen fédération pourquoi du ngeen waxtaan ak ku mel ne Aliou Cissé xam nga et je vantais ses qualités bon y avait des gens ci biir assistance qui loolu lu ñu war a gën a xalaataat la et tout donc je pense que Augustin Senghor bu seetaanee live bi dina fàttaliku suñu rencontre boobule j'ai toujours cru en Aliou Cissé mais ce que je salue aujourd'hui moom mooy te defe naa loolu man ak moom on a ça en commun moom mooy son mental de fer critiqué nañ ko xas nañ ko ñenn ñi dem nañ ba wax ko lu ñu ko warta wax mais dafa gëm boppam dafa gëm boppam li positif jël na ko mu tànkam lu li ci des Sénégal boo fi buggee boo buggee boo buggee àgg fi nga bëgg a dem da ngay tànkam lu am un mental de fer am un mental de fer mais aussi savoir aussi nga mën a nga mën a dépasser yenn yi ndax gis nañ ne après jàppewul dara muy dara ci interview mi ak euh, également ni mu doxalee ak Khalidou Fadiga gars yi aussi soyez soyez complaisant avec euh, Fadiga Fadiga c'est c'est quelqu'un de il est extra extraordinaire aussi maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax on a de super bons rapports Fadiga je te je te fais un grand big up également vraiment Aliou Cissé euh, nit. nit bu nite moom moo jafe te ñu mel ne Aliou Cissé ak yenn joueurs yi sénégalais yi ay nit yu nite lañu nit da ngay nite son mental de fer sa rigueur son professionnalisme jàpp rek euh, euh, téye te bàyyi jaroo lakk yow Aliou Cissé kon na gars yi aussi may def un big up à tout le peuple sénégalais xale yi génn c'est une image boo xam ne ba ba ñuy dee duñ ko mos a fàtte vraiment un grand big up respect au peuple sénégalais vraiment non sama xol dafa tooy il faut ma ma continuer et tout vraiment aussi di remercier aussi di féliciter le président euh, Macky Sall parce que euh, def na geste bu bu bu bu extraordinaire enfin extraordinaire disons wane na ouverture d'esprit parce que invité na l'opposition wax na lu am solo nee na tey nekkul affaire de xiiroo ngaa yow adversité tey du mbirum politique tey Sénégal moom moo xewle victoire bi victoire Sénégal la victoire du Sénégal yépp la kon nag ñuy aussi remercier aussi au passage ku mel ni ñoom Khalifa Sall ku mel ni ñoom Barthélémy Diaz ku mel ni ñoom Déthié Fall ah ak ñoom Pape Diop également le l'ancien premier ministre Abdou mbay également ñoom Bougane Gueye Dany ñoom ñëpp ñëw parce que ils ont compris que ni politique àdduna lépp du rek ay mbirum ennemis vous êtes des adversaires mais vous n'êtes pas des ennemis parce que ñëpp ay sénégalais lañu ñu ñëpp ay sénégalais lañu lii politi kese la mbirum zaayir la. politique dafa am benn moment am moment boo xam ne Sénégal moo la soxla bu ñu nee Sénégal mooy les sénégalais Sénégal moo ëpp solo ko yéen seen parti politique Sénégal moo ëpp solo ko yéen seen jëmm yi yéen dafa nekk loo xamante ne du ay waxu kese dañ ko war a di jëfe dañ ko war di ko jëfe ñu bàyyi politique politicienne. foofu daal laay yem féliciter le président de la république également l'opposition l'opposition sénégalaise qui s'est montrée très républicaine voilà ku mel ne Khalifa Sall ak lu munti demee Khalifa Sall mosul wax wax boo xamante ni ku nekk da ngay téye sa gémmiñ donc c'est un homme d'état xam na luy état xam na fu mu war a yem am na ay limites ak lu munti deme c'est un homme d'état te wane na ko moom ak ña mu àndaloon ñëpp kon nag jaraw lakk waaw yéen Sénégal kontaan naa bu baax je suis fière d'être sénégalaise je suis loin du Sénégal mais je suis fière d'être sénégalaise kon nag yi mu am aussi benn tache noire bu ndaw euh, parce que ba je vous le dis tout de suite euh, ba président waxee ni ba président waxee ni je vous je vous assure nit warul toog di wax di waat mais ba président waxee ni may na ay terrain ak cinquante millions joueurs yi tout de suite dama ne am na ñoo xamante ne dinañ xëpp suuf ci kaat ci ci ci ci ci ci ci xew ci xew mi dinañ xëpp suuf ci cere ji nii laa ko waxee donc bettuma je me je me disais nag comment ils vont faire ba trouver une faille comment ils vont ba xëpp suuf ci kaat ci ci cere ji eh ben ils l'ont fait seen xarit activiste waa kër Ousou Bébé seen xarit activiste boobule may bañ a wut may bañ a tudd. fexe na ba bëgg a xëpp suuf ci ci ci cere ji ay waay dootoo ko defati waay ay waay li nga dégg ci coow coow li coow li la coow li la topp ndax li ma neex mooy dafa am sénégalais yoo xam ne même bu ñu contrer Macky Sall sax mais ils étaient ils étaient avec les lions ils étaient avec le Sénégal ils étaient contents de de, de cette coupe là mais ngeen bëggoon xëpp suuf ci cere ji di di ko def nag de manière toujours comme d'habitude de manière vicieuse de manière sournoise de manière hypocrite de manière tout le temps ngeen xool ni ngeen koy defee pour manipuler la masse bi yoon sa pas pris ñépp daanu seen kaw ngeen di jéem a defaraat di jaay jaay jaay nandte bëgg a dox suñu xel yi suñu maay nii kee Ousou Bébé génn bëgg a récupérer def récupération politique xale yi ne ko déedéet du fii di ko sànni ay xeer ba mu dellu këram balaa ngay dee ñu naan la ay waaw étudiant APR yi la bien sûr bien sûr xam nañ lépp juste pour mu xamal la ne joueurs yi ku ci mel ni ay ñoom Sadio Mané soxlawuñu cinquante million li ñu def seen biir dëkk mais du dara cinquante millions du rien pour ñoom c'est vrai am na joueurs yoo xam ne c'est des jeunes am na joueurs yoo xam ne peut-être bàyyiwuloo leen xel ci biir équipe bi ay xale yu ndaw lañu. ñu ngi door a démarrer seen seen carrière tey lu ne mun na leen dal ci seen biir carrière yéene wuñu leen ko mais su boobaa tey terrain yi ñu am ñoom ak seen njaboot dina leen servir mais c'est vrai yaa ci biir équipe bi ñoo xam ne soxlawuñu cinquante millions mais on l'a fait de manière symbolique ndax mbégte bi nga xam ne jox nañ ñu ko c'est de manière symbolique ñun de wóor na ma ne coupe bi tey bu ñu ne woon képp koo xam ne kuy sénégalais partout dans le monde yëkkati 1000 francs nga def ko ci lions yi dina am ñu yëkkati 10 000 francs def ko ci lions yi man je le man kon nag lion yi a jaaraama Sénégal sénégalais yi jaaraama wane ngeen ni Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar ñenn ñi bëgg nañ ko politiser ngeen bañ ba ci ba tëdd ci suuf gën leen nag di gën di yeewu foofu lay daanelee mooy def leen attention de manière générale sama gars yi muy presse bi ak ñenn ak sénégalais yi yenn activistes yi du ñëpp de. mais yenn activistes yi dañuy monnayer seen combat da ngeen defee dañoo jékki-jékki rek naan Auchan na fi jóge déedéet jamono yooyu dafa am ñoo xamante ne ne Auchan ñëw Sénégal arrangé wul leen woon dañuy dem xool ji seen ay yenn activistes yi ñu am luñ leen teg seen loxo dañuy monnayer seen i combat sama gars yi def leen attention fii adduna bi nekkatul àdduna di bisounours àdduna bisounours nekkatuñ ci am na ñoo xam ne du ñu fecc yàlla naa dee def leen attention ñu leen di manipuler foofu rek moom laay yem. ma ñëw ci benn mbir bi moom mooy dinañ ko waxtaanee tey moom mooy euh, suñu soldat yi nga xam ne dañu leen tëyee fële ca euh, euh, waa MFDC ñun ñoo leen tëyee duñ ci commentaire lu bari nag dina am benn audio bu moo xam ne dinaa leen ko tegal wala sax vidéo naa xool nu ma leen koy tegee tegalee ngeen xool ko apprécier et ce sera à de commenter balaa ñu dugal suñu invité tey suñu invité tey moom mooy Moustapha Diakhaté nekkoon fi député également Moustapha Diakhaté boo ñëpp xam nañ ko dañ ko waroon jël dimanche passé ci biir local ko waroon jël sax mais il devait faire des émissions au niveau de la télé ñu waroon def émission dimanche passé mais defuma live moo tax tey moom mooy nekk tey suñu invité kii di Moustapha Diakhaté c'est un plaisir également de le prendre ko door xam mais ñun xam nañ ko depuis des années et des années man maa ngi ko xam depuis jamonoy Walfadjri kon nag gars yi ma tegal leen juste rek Euh, benn vidéo boo xamante ne nii dama ci tombé tey euh, vraiment pour ñu aussi rendre hommage suñu soldats yi bu ñu leen mos a fàtte bu ñu leen mos a fàtte fàtte yal na leen yàlla dolli sutura ba ñu ñibbisiwaat ci seen njaboot yal na leen yàlla dolli sutura te li ma gën a metti je dama xawoon tawat nag depuis mercredi mais je devais faire euh, ay publication dans ce sens là am na image yi ngeen gis yu nga xam ne nii man j'ai refusé de le parta de les partager mooy. waa MFDC dañoo invité la presse jël suñu soldaa yi nga xam ne téye nañ leen ñu filmer leen gars yi tas lépp ci réseaux sociaux yi soldats yooyu dañoo am famille dañoo am yaay am papa am ay doom am ay frères am ay sœurs defuñu dara lu ñaaw il sont partis pour défendre la nation te ci ñun lañu bokk kon même sur le plan des des droits humains amuñu droit nga téye yow nga ne da nga téye otage. nga di ko humilier mu nekk un soldat nga takk ay ñaari loxoom nga di ko filmer ñu di tas ko ci àdduna bi loolu c'est humiliant et c'est scandaleux même sur le plan des droits humains loo xamante ne ne waruñu ko mun a def kon droit de l'homme yi sax war nañu mun a wax ci lii ni mel ndax lii ñu def ni du dëgg du yoon ma tegal leen donc benn benn benn benn vidéo y a un un ministre je crois, ministre de la Justice. Guy, c'est de Salif Sadio. Hein? la vidéo Le professeur Major Fall. J'ai vu dans le Facebook, sa déclaration là. Je suis très content de cela. Parce que les Casamassés là, je ne sais pas si c'est. de la naïveté. Je ne sais pas. Les gens étaient là, là, Je sais qu'il y a des militants de, Ousmane Sonko ou les sympathisants qui, est, qui sont là. Parce qu'il est d'origine casamanceuse, s'il est présent, il va libérer la Casamance. Il est président de du Sénégal. Major Fall a fait cette déclaration. Voilà ce qu'il a dit. Ousmane Sonko ne serait jamais président du Sénégal. Lorsque j'ai vu ça Facebook, j'étais très content. J'ai eu à, avoir des mots avec certains militants du, de PASSEF et tous les, les Casamancés Parce qu'ils sont fiers de Ousmane Sonko. <laughs> ils sont fiers de Ousmane Sonko. non, non, ce que vous avez écrit là, c'est pas ça. Je dis, c'est ça. Macky n'est pas le premier à dire que la Casamance n'est pas sénégalaise. Parce que vous êtes Casamancé, bon, naïf là, non, non, non. Ousmane Sonko Ololi. Oh, oh, le Sénégal n'accepterait jamais qu'un étranger soit présent du Sénégal. Jamais. Parce que nous sommes des étrangers. Même si vous allez, vous allez dire ou montrer ça à Ousmane Sonko, il saura ce que nous, ce que, ce que, ce qu'on ce qu a dit. Ouais. Montrez ça à Ousmane Sonko. Montrez-lui, dites-lui qu'il y a un des combattants de Salif Sadio qui, qui, qui, a dit qu'il approuve ce que Adi Major Fall a dit. Le professeur Major Fall, il a parfaitement raison. Ce sont les Sénégalais, ce sont les Casamassis qui ne défendent pas leurs intérêts, leur terroir, leur population. Mais les Sénégalais sont un. Le Sénégal est un. devant, la, devant le problème Casamance. Ils sont un. Mais nous, on est toujours là, là, pour avoir deux sacs de riz, je ne sais pas. L'essentiel, c'est que là, que salo que salo ke. Pounyene pounyene Donc il faut savoir cela. Salif, voilà ce que Salif a dit. Il est indépendantiste, il va mourir indépendantiste. Lui, avec tous ceux qui sont Que ça pleut ou que ça Le Sénégal, nous avons donné une chance au Sénégal. Comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas des barbares, nous ne sommes pas des, des sauvages, ni des violents, des battants guerre. Parce que pourquoi Voilà ce que Salif a dit. Les Casamassés ont marié des Sénégalaises, les Sénégalais ont marié des Casamassés. Pour que demain, pour que demain, quand cette guerre-là va se terminer, les Boukoudio Club maintenant, les les Sempoules là, les simples peuvent traverser les frontières, aller voir les grands-parents. Parce que le Sénégal est un pays africain comme la Casamance, un pays frontalier. Les Africains ont d'autres préoccupations, non que la guerre. Tout ça sont les Toubacs qui font. Je vous dis que c'est la France qui nous fait la guerre par le Sénégal interposé. C'est la France qui nous fait la guerre par le Sénégal interposé. Donc il faut que les choses soient très claires. la Casamance. Elle est Sénégal, elle est Casamance, elle est Casamance, elle ne sera jamais sénégalaise, elle va rester Casamance. Vive la Casamance libre et indépendante comme les colons européens l'ont toujours. voilà donc euh, c'est sans commentaire ñoo ko déggandoo donc la vidéo circule sur les réseaux sociaux j'ai rien inventé inventé wu ma dara c'est sans commentaire je pense que mun nañ ci euh, sama invité dinañ ñëw ci sujet bi ni mel justement annoncé leen aussi beneen mbir euh, sama gars yi ñu ngi def ay live mais bientôt li ñuy def ni dina romb ay live voilà donc ma leen di ñaanal ngeen ñaanal ma Euh, donc dinaa ñëw Sénégal incha allah je vous dirai quand exactement pour inaugurer li ni mel incha allah dinaa leen donc annoncer sama euh, retour au Sénégal juste rek dem pour inauguration def benn mbir euh, fële ca Sénégal dinaa leen annoncer donc sama retour foofu ca Sénégal voilà mais comme ni ngeen ko xamee voilà donc j'ai été au Sénégal en 2014 et tout cela voilà donc le système a essayé de me broyer sama mbokk yi ak ñi ma àndal ñëpp ne ma ma ñibbisiwaat donc ma ñibbisiwaat Europe pour mun a liggéey teg say buntu donc voilà moo tax ma ñëw Europe pour liggéey mais yàlla def na ni voilà am na loo xam ne dina xew incha allah di ngeen ko gis ci kanam Euh, may rendre grâce à Dieu ak yéen ñi nga xam ne yéen moom mos a encouragé donc Sénégal xaar leen ma maa ngi ñëw incha allah donc am na loo xam ne voilà ce sera pour le Sénégal pour les Sénégalais également et pour également le monde de l'audiovisuel donc loolu laa bëggoon a wax mais su boobaa jàpp leen ne euh, tey lépp lu ma am lu ma naqari en tant que citoyenne dina dugal euh, dootuma sax def live bu fekkee ne dafa am lu ma war a wax man personnellement du ma ko wax ci compte blog de Mati 3 que dina am ñeneen fi liggéeyi en tant que citoyenne parce que nit ki boo taxawalee dara euh, ce sera pour le pays pour le Sénégal man sama xalaat sama bëgg-bëgg dama koy teg de côté donc lépp lu ñuy def dañ koy def de manière voilà pour ñëpp voilà donc lépp lu ma xalaat man samay propre émotion samay ressenti je le garderai pour moi wala ma def ko en live sur Matifal voilà donc loolu laa bëggoon ngeen xamee ko noonu ñu jël nag suñu invité sama gars yi voilà alors donc euh, <laughs> ku ku ku yàgg muuñ rek muuñ voilà kon nag du nouvelle bu neex boobu laa leen doon yéggi yég yéggiwee ñu oo Moustapha Jaxate allo oui Moustapha maa di la nuyu bu baax a baax ma bàyyi la nga nuyu ak ak ma bàyyi la nga nuyu ak ak euh, followers ak waa diaspora waaw waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu hmm. eh, mbokki diaspora maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam yaa lool ci invitation bi ma soxna mati ci hmm. ngir ma bokk ci eh, waxtaan wi hmm. comme ni ma koy waxee rek man moom eh, politique pour man mooy wax ak askan wi ak waxal askan wi Mm-hmm. kon ku la woo waxtaan eh, yow lay yow lay dimbali. li may ñaan nag mooy waxtaan li ma fi jot kàddu yi ma fi jot mu nekk yoo xam ne day nekk dëgg te njëriñ eh, waa Sénégal ak Sénégal. alhamdulilah donc loolu de lañ ci jublu euh, donc lu ma bëggoon juste rek ñu gën a euh, d' abord ñu njëkk a waxtaan ci euh, d' abord l' actualité gars yi tey la ñuy ngénte tey suñu coupe bi coupe d' Afrique bi un mot donc sur le Sénégal et sur nos lions mais surtout le peuple sénégalais avant ñu ñëw nag ci actualité bi moom mooy déjà nos sept soldats yi nga xam ne dañ leen jël en otage dugal naa sànq benn vidéo mais je l'ai j'ai pas voulu montrer l'image du lieutenant donc de Salif rajo bien que image baa ngi circuler euh, parce que dafa am na ay photo yu ñu teg ci biir te bëgguma stigmatiser ñenn ñi euh, li mu wax dinaa la ko gën a faram-fàcceel bu ci kanamee d'abord un mot pour nos lions et pour le peuple sénégalais. waaw d'abord pour euh, ndam li ñu am fële ca Cameroun li may njëkk a mooy damay njëkk sant adduna parce que li extraordinaire nga xam ne ku ngay victoire Sénégal bi daf wane mooy en réalité Sénégal àdduna bépp ko bëgg. Mm-hmm. loolu jàpp naa ne waa Sénégal war nañ ko jàng loolu nag euh, bu nu àdduna bëggee jàpp naa ni ñi nga xam ne dañuy Sénégal yi nekk diaspora mhm. jàpp naa ne seen xar kanam ci diggante seen melokaan ci diggante réew yi ñu nekk bokk am na lu mu ci jur mhm. bi ni Sénégal nekk ab démocratie ci Afrique bokk na xëy na waaye jàpp naa ne Sénégal yi nekk bitim réew mhm. seen melowaan seen jikko seen yar seen teggin tax na réew yi ñu nekk bëgg Sénégal ba bëgg googu feeñ ci li nga xamee ne gañe nañ gagné nañ coupe bi. Mhm. gërëm aussi kon supporters yi doon nañu sax parce que nag coupe bi waa Sénégal la. Mhm. maintenant bu ma gërëmee ñooñu ba nag gërëm effectivement président de la République parce que nag euh, jàpp naa ne def na li ko war pour Sénégal mën a gagné gërëm Matar Ba gërëm fédération sénégalaise de football ñëpp. Mhm. gërëm euh, équipe bi ak euh, entraîneur bi Alioune Cissé ak xale yëpp. gërëm tout le peuple Sénégal daal parce que ndam li yàgg nañ ko wut man personnellement 1992. Mhm. bokk naa ci ñi nga xam ne ñoo installé le douzième gaynde à l'université Dakar booba lañ bëggoon a gagné bi booba gagné bi Sénégal organisé coupe d'Afrique mhm. booba ak léegi ñu ngi toog fanweeri at kon bu ñu ko ma def mhm. Sénégal yëpp seen xol sedd damay wax ne bu fekkoon ne état bu Sénégal mën naa bis bu seen mu dépassé cinq milliards pour ni àdduna déggee keroog Sénégal déggee ni jar na ko kon encore une fois vraiment man am naa euh, a jàngal Sénégal daa dajale li am li mu gën li ci ay joueur mhm. ñoo ko jox ndam li mu ndam li mu am. billaay kon liñ ci war a jàngal rek bu ñu song lu ñu lu ne bu ñu ci bëggee am ndam. Mhm. nañ fexe ba seet ña gën ko man ñu mhm. dénk leen ko boobaa daañu ci am souvent que leçon boobu ñun loolu la war a tiré. parce que en a ñu jox ñu ndam li ñu kon bu ñu bëggee ab relevé un nañ seet Sénégal yi nga xam ne ñoo ko dàq. ak fu ñu mën a nekk Sénégal ñu nekk bitim réew ñu nekk Europe ñu nekk Asie nañu leen jëli dénk leen loola man jàpp naa ne boobaa dañ ci am je crois que c'est la leçon que nous devons en tirer mm-hmm. ñun dañuy def politique ci béggee ba noppi Mhm, machallah en tout cas voilà donc mm. c'était vraiment euh, benn parenthèse vraiment pour dire que ni ba tey ñun ñu ngi ci euh, vraiment sur notre sur notre petit nuage ba léegi on voilà on mm-hmm. arrive à réaliser petit à petit qu'on est vraiment le Sénégal est champion d'Afrique di ñaanal également Lions yi que euh, pour également les barrages pour la Coupe du Monde yal na yàlla dolli sutura ba ñu gagner Égypte voilà bu ko defee ñu mën a également dem fële ca Coupe du Monde waaw donc comme ni ma ko waxee sànq mhm. je suis vraiment très contente euh, euh, nga dugg ci live bi pour la première fois maak yow defe naa ba dugg mhm. Walfadjri la macha allah dara mosta mhm. ñaaw euh, aussi on t'a toujours connu ak sa maanaam sa franc parler également sa engagement donc tey suñu premier waxtaan mooy jublu ci mbirum soldaa yi nga xam ne tey nañ leen fële ca ak voilà ils sont entre les mains du du MFDC donc d'abord lan sa xalaat ci loolu ak pourquoi d'un coup On commence maintenant à agiter le sujet de l'indépendance de la Casamance après tant d'années. xam nga gis ne demoon nañ ba nga xamante ne sax euh, y avait la paix en Casamance ba yenn village yi population yi ñu ngi doon dellu si waat pourquoi d'un coup mbir mi tàmbaliwaat ba ñoom ñoom ñuy wax naan mbirum indépendance Casamance. Mm-hmm. jërëjëf d'abord li may njëkk def mooy ñi nga xam ne dañoo MFDC soldats yi mu jot rey mm-hmm. Euh, dama leen di ñaanal yàlla subhanahu wa taala mu xare leen àjjana jaale leen seen i bokk jaale leen peuple sénégalais bi yëpp mhm. ñi nga xam ne aussi dañoo dañoo jàpp en otage ma masawu leen euh, di ñaan yàlla lu ñu gën gaaw ñu jóg fa mhm. bu loolu jàllee na ma daal di ñaawlu encore une fois man loolu laa gëm li nga xam ne MFDC mu ngi koy def parce que ça c'est du terrorisme mhm. c'est pourquoi may wax ni gouvernement bu Sénégal li war a def mooy considérer le MFDC comme une organisation terroriste appliquer les lois na ko ba nopp parce amul maanaam groupe bu fi def lu lu lu bone li nga xam ne MFDC mi ngi koy def rawatina li ñi ñi MFDC gën a lor mooy waa Casamance maintenant mhm. dafa am loo xam ne ba lu tax mbir yi am lu tax yëf yi jóge nii mhm. c'est vrai euh, guerre amoon na waaye demoon na ba MFDC militairement euh, euh, il est défait à la mhm. limite li ñu tuddee mooy un peu de banditisme et de terrorisme li ñu seetlu nag fan coow li jóg na mën a jàpp naa ne am na ci loo xam ne Euh, benn xëy na ci responsabilité état bi la parce que man dama gëm ne un touriste un terroriste kenn du négocier ak moom. Mhm. alors que les MFDC pour moi il faut du terrorisme une bàyyi benn un mètre carré ci ci territoire bu Casamance bu Ziguinchor wala Casamance. Mhm. un rebelle di fa nekk ñu xam ne mu nga fa. Mhm. pour man loolu jàpp naa ne ci surtout politique gouvernement bi parce que man gëm naa ne armée bi moom bu ñu leen bàyyee MFDC léegi ñu faagaagal leen beneen bi ci nag am na loo xam ne man seetlu naa ko. mooy da rarement ngay gis ñi nga xam ne dañuy ay kilifa mhm. ay leader politique mhm. ay leader d'opinion yu dëkk Casamance ñuy ñaawlu li MFDC di def mhm. or ñoom ñoo ko war a jëkk ñaawlu parce que ñoo fa dëkk parce que wala ngay def ne ki sa gimi xëy na sa doomu ndey moo la koy wax ñoom ñoo war a defoon ay marche blanche di wàcc ci mbedd mi di dénoncer les actes criminels du MFDC parce que MFDC quarante ans li mu lor ci waa Casamance loru ko ñeneen Mm-hmm. kon encore une fois bu nee day jug la leen di xeex ngir Casamance xeexulu Casamance parce que xeexam gi aw lor lay jural Casamance parce mooy jamais au plus grand jamais la Casamance ne se duñ ko tàggali réew parce que Casamance yi liy ëpp ñoom ba ku jugoo c'est mm-hmm. une petite minorité de dam tudd ci d'illuminés ñoom ñooy def loolu waaye la majorité mm-hmm. des populations de Casamance muy les trois régions kenn bëgguñu tàggoog Sénégal ñoom dañoo gën bëgg gën a bokk Sénégal. Mhm. Sénégal aussi ñeneen ci des li bëgg Casamance gën a bokk Sénégal moo leen gën a mhm. am na effort yoo xam ne état bi koy def nañ ko doon mais li ma mooy la question du MFDC c'est une question de terrorisme et mhm. l'État doit donner des moyens militaires aux gendarmes et à la police et aux, aux, pour que ñu ra maanaam dootuñu am benn mètre carré boo xam ne dañ fay nekk gaz parce que un pays indépendant warul nangu sur son territoire mu am deux armes. c'est une armée de terroristes. loolu moom jàpp naa ne door Sénégal dafa war a def. waaw bi ci xaaral maa gën rek. boo xoolee la classe politique Sénégal ñëpp dañ cee noppi kenn mm-hmm. ñi ma wuccee wax. mais tant que une imagine yow France bu France bu benn soldat dee. Mm-hmm. ñëpp eh, dañuy taxaw delloo si ko ñaaw mm-hmm. xam ne moo faat Sénégal ñu rey seen ñetti soldats. Mhm. jël juróom ñaar dërëm en otage amul benn parti politique bu def communiqué pour pour ñaawlu mhm. loolu c'est inacceptable ça pour encore d'ailleurs pendant pendant temps ngay gis ay Sénégal yu jóg ne dañuy dem Mali pour soutenir les poursuites ya fa nekk mhm. c'est inacceptable en gros gis nga man ci bu la classe politique sénégalaise c'est pas une classe politique patriote c'est une classe politique de calculateurs qui ne s'occupe que de ses intérêts et c'est honteux cette souffrance-là par rapport à ces morts et à ces gens qu'on a pris, qui sont entrepris en otage. waaw mais mais quand même bon aussi bon wax responsabilité de l'État mais quelque part tamit xam nga euh, li ma li bon c'est un sujet sensible mais xam nañ ne. Euh, euh, waa MFDC en général dañuy jaxasoo dañuy dem ci bërëb yoo xam ne euh, dañuy jaxasoo ak villageois yi xam nga donc tey bu fekkee ne armée ñëw na xaaral rek ma expliquer la tey bu fekkee ne ba dama ñuy def comme par exemple ce qui s'est passé en Afghanistan et cetera et cetera avec les Américains loolu mun na nekk scandale parce que tey armée bi bu ñëwee rek jaxase leen la on peut avoir des on va dire des victimes collatérales yu grave comme les enfants les femmes les vieillards parce que dañuy jaxasoo population bi ah. non Maty Sénégal am nañu technicité bu mën a xàmmee ràññee rebelle ak ak population civile xam nga Algérie amoon nañ problème mu terrorisme avec le GIA en Algérie. waaw mais ils l'ont réglé. Mm-hmm. avec des renseignements mais aussi avec des des des attaques ciblées contre des terroristes. Mm-hmm. mat armée Sénégal xam na nu mu koy defee. Mm-hmm. mais le problème souvent dafa am ñoo xam ne dañuy dund ci rébellion bi. di wax ay négociations naan muy ah, mais xool rappel rappelé wu kii euh, Maty am na benn l'ancien président du mais ça c'est une trahison. la répartition du pays nga naan leen di jox xaalis dafa am ñoo xam dañuy dund ci rébellion. Mm-hmm. te ay ñu ñu xam dañ ciy dund. Mm-hmm. parce que man li ma mooy si y a des ay Atout Badiate ay Salif Sadio ñu am foo xam ne fa la ñu nekk xam ñu nekk pour man ça c'est une faute c'est une haute trahison du gouvernement sénégalais parce que un rebelle wala man un bon rebelle c'est un rebelle mort waruñu leen a bàyyi ñu am ay cantonnement ñu xam ne fa la nekk mm-hmm. loolu d'accord kon daal yow pour yow euh, l'état du Sénégal war nañ ci jóg nu mu gën a gaawee et aussi les hommes politiques sénégalais aussi war nañu également ah. ñoom it euh, ci mais mais mais Maty mhm. Maty rappelez-vous quand quand quand quand quand Charlie Charlie Hebdo a été attaqué par des terroristes mhm. mais la France a organisé une marche mondiale mhm. combien de présidents africains ñoo ko dem tey ci la Sénégal dañoo war organiser une marche nationale avec tous les leaders ñu tot ñu sol yu weex dénoncer le MFDC. Mhm. organiser marche sur l' ensemble du territoire national y compris en Casamance. Mhm. voilà ce qu'on doit parce que nag quand même tant que di mas la naa woy yooyu c' une question c' est pas une question sensible c' une question de terroriste et mhm. un terroriste on le traite comme tel pour man noonu laa ko gisee bon les gens peuvent avoir des des, de pacifistes là. vous savez que la guerre là boo ko bëggee pour que ñu vraiment ñu gën mhm. ñu gën ci xuus gën koo toj parce que euh, ci mhm. audio bi ma ma dugal encore une fois en parenthèse euh, c'est une vidéo parce que ñoom waa MFDC ñoom ñoo woo euh, presse bi Euh, voilà si la ñu wone donc les soldats euh, voilà ñu ñu tëkk takkee et tout ñoom ñu wax ak également presse bi li lieutenant Salif Sadio mooy li ngeen dégg noonu moom moo ko wax donc quand on appelle mm-hmm. la presse c'est parce que bëgg nga également ñu wasaare information bi moo tax aussi ma teg li nga xam ne moom la lieutenant Salif Sadio wax parce que ñoom ñoo woo presse bi presse bi donc biiral image yi ñu teg ko tey jii et mu ngi tasaaroo fépp ci réseaux sociaux yi donc le lieutenant mm-hmm. nee na du am président étranger au Sénégal bon en parlant de voilà benn opposant euh, foofu ca Sénégal muy Sonko mais li ma ëppal solo man ci wax ji moom mooy benn phrase moom mooy c'est le la France qui est derrière le Sénégal xam nga pour maanaam noot Casamance parce que ñoom dans le tête Casamance du ñu mos a jóg ci réclamer seen indépendance Casamance c'est un pays à part entière ba mu naan euh, ñoom du ñu ay nit yu violent euh, da gis nañ fi ay sénégalais yu takk ay casamançaises donc ñoom nee du ñu mos a wéer ngànnaay du ñu mos a bàyyi Casamance mu bañ a nekk euh, maanaam euh, un état Casamance pour ñoom dans leur tête c'est un état mais pourquoi après toutes ces années là y avait de et tout ñoom ba ñoom seen biir sax on disait que ñu ci bëri ñu ngi ci mbirum euh, njaayum trafic bois beeg yamba beeg ñoom seen pourquoi d'un coup on revient sur le sujet de l'indépendance de la Casamance d'un coup la waaw xam nga en fait euh, c'est vrai bizarre lu tox ñu jékki-jékki ba léegi rek ñoom ñëpp ñu jóg euh, mbir mbir tamit xam nga lu mel ni bon man personnellement yoruma élément yu ma ko mën a analyser li ma jàpp rek mooy y a un une conjonction de plusieurs facteurs mm-hmm. ba bokk na ca nag la fait ñu may leen ñu mën a am ay territoire yoo xam ne fa la ñu nekk ci Casamance ñëpp xam ko mu nekk ay koo xam ne dañ fa dañ leen fa dañ leen fa bàyyi ñu man jàpp naa loolu mooy élément bi nga xam ne. Mhm. moo moo favoriser ñu am possibilité di déplacement pour di mhm. attaquer ay des Séné des des des en Gambie. Mhm. di di leen jël en otage ba di leen rey je crois que loolu moom élément yu bari bari yu bari bari moo koy maintenant li am solo rek mooy jàpp naa ne lii moom bu ci Sénégal jógee. war naa jël responsabilité ba lu muy ni dootu amati mukk moom. loolu nag pour man évidemment su fekkee mënees naa wax ak jàmm ba jàmmam sans mieux mais je que ces ces ces gens là du ñu mën a am ak ñoom benn li jëlee nag li ëpp solo. Mhm. mooy quatre vingt dix neuf pour cent. Mhm. des Casamance. Mhm. virgule même quatre vingt dix neuf pour cent ne veulent pas de l' indépendance de la Casamance. c' est vrai c' est des illuminés du FDC. ñoom ci ñi njëkk a dem ci kii bi sax ci bëri def nañ ñi màggat nañ te à la limite ay yu bees ay quelques terrorisme man ñaari nit mën nañ mën capturer mbooloo parce que terrorisme moom laajut nga am matériel bari. mooy. sénégalais yëpp mu nekk mu dans sur l' ensemble du territoire national y compris en Casamance ñoom nag ñoo war a jël combat bi def ko seen combat bopp bañ a nekk combat boo xam ne entre le MFDC même ak ak la doon wala entre le MFDC ak le Sénégal. Mm-hmm. mu nekk un combat national contre le MFDC. je crois que loolu mooy solution bi nga xam ne moo jaadu malheureusement nag li ma seetlu mooy sénégalais boo tuddee sax affaire MFDC. Mm-hmm. dañu mel ni ñu MFDC dinaa ko tudd tey dinaa ko tudd suba dinaa ko tudd démb. Mhm. ku jàpp ne yow laay wax kooku sa affaire bopp la ma jàpp mooy Sénégal est un pays uni indivisible et que on n'acceptera pas que MFDC di continue de mel nii. Mhm. et moi je un appel solennel au président pour qu'il donne suffisamment de moyens à mhm. à la police. pour qu'il n'y ait pas un mètre carré, un millimètre carré du territoire national occupé par un, un rebelle du MNDS. Mmh, mmh. Voilà, même un terroriste du MNDS. Voilà. Euh, euh, monsieur euh, Moustapha Diakhaté, même juste une parenthèse pour nos internautes, nos followers aussi. Euh, voilà, pour être aussi honnête, Manmi Samaboko, aussi des gens m'ont approché. Euh, en 2019 pour que ma mun a def je négocier benn interview ak Salif Sadio voilà ba voilà donc y a des gens autour ñoo nga xamante ne ñu ngi doon faciliter donc l'interview avec Salif Sadio donc ñi nga xam ne ñoo ma ko doon faciliter tey certainement ñu ngi seetaan live bi donc ñun yàgg nañu nekk ay reporter donc voilà du ñu comme euh, voilà donc quand on est reporter Moustapha Diakhaté yow xam nga li may wax donc du ragal du leneen c'est notre métier lu ñu ci dal ñu xam ne loolu la donc defe naa ne Irak ba mu gënee metti maak Euh, kii di Sidy Lamine Niass ñoo waroon dem fële ca Irak donc ñun suñu liggéey dañ koy dem dem ba jeex dañ ci dem ba jeex kon nag le les journalistes qui sont partis là-bas ba filmer Salif Sadio également les les les blessés ils ont fait leur travail si j'étais à leur place je ferais également pareil voilà donc kon nag tey jii mm. euh, ñu continuer euh, donc également ci waxtaan bi voilà wa allez allez-y allo. journaliste moom ama journal journaliste moom euh, lii liggéeyam mooy mooy informer askan bi kooku mhm. moom je crois que kenn kenn du ci kenn du ci xarab askan am te nag bon na mais élément yi ngay génne mhm. war nekk loo xam ne du du heurter nit ñi du heurter l'honneur des des mhm. militaires qui sont pris bi des aussi ça ne sera ne doit pas une propagande pour la rébellion mais un journaliste moom liggéeyam mooy informer nit ñi li nga xam ne nit ñi mënuñu koo gis mu wan leen mu mu mu dégtal leen ko. Mm-hmm. je crois que loolu moom dara ne dara nekku ci l'essentiel bu mu nekk affaire propagande et je crois que loolu les journalistes sénégalais sont suffisamment compétents sont mm-hmm. suffisamment conscients et sérieux mm-hmm. et depuis événement Casamance ça n'a jamais été fait ça n'a que loolu. voilà na meloon démb tey tey la quoi maintenant ce niveau aussi n'est pas de problème maintenant. Euh, li ma jàpp daal euh, nous devons en faire cette fois une cause pendant longtemps man li ma jàpp rek mooy on a laissé le le le problème de la Casamance entre les mains du gouvernement. de mhm. MFDC l'armée et des négociateurs. pour mhm. moi dañ ko war a def une cause nationale. Mhm. que sénégalais bu ne jàpp yow da war pour nga def loo mën pour affaire boobu jeex Casamance yi am jàmm. am te tey boo xoolee d'ailleurs li may wax ne c'est terrorisme. parce que tey nan ngaa jógee Ziguinchor dem guddi. doo am benn problème. tey jii par Mm-hmm. que, que, que, que, certains quartiers de Dakar. Mm -hmm. Mais malheureusement, il y a le MRDC qui est là, qui parfois des, actions épisodiques, mm-hmm. euh, sporadiques, pardon, mm-hmm. et qui tue des militaires et qui les prend en otage. Ça, pour moi, c'est inacceptable. Mais dans l'ensemble, dans la région de Casamance, la Casamance est beaucoup, est aussi sûre, sinon même plus sûre que beaucoup de régions, de, communes, beaucoup de quartiers de Dakar. Et là, vraiment, il faut remercier évidemment l'armée, effectivement pour défaire militairement le MFDC, mm -hmm. mais malheureusement, le MFDC en train de, de renaître, mais mhm. cette fois-ci sous terroriste. Et ça, je crois que nous ne devons pas le laisser faire. voilà donc maa ngi lay remercier bu baax a baax pour fermer cette parenthèse ñu dugg ci beneen sujet voilà je pense que à l'époque ba ma waroon def sujet boobu ak Salif Sadio voilà pour interview boobu euh, je sais que ni y a beaucoup qui m'ont contacté ñoo xam ne ñi ngi woon ci biir ñi ngi ci diaspora bi ainsi de am na yoo xam ne kenn du ko wax mais donc voilà donc j'avais vraiment des contacts au sein juste pour informer ñenn ñi nga xamante ne ni ils n'ont pas compris lu tax ma dugal vidéo bi sànq alors donc Moustapha Diakhaté ñu ñëw ci élection locale yi euh, jàngat yi ñu ci am on va vers les législatives euh, am na euh, ay coalition yi nga xamante ne nii euh, tëgg nañ ko fi taxaw na fi ah ku mel yeewu askan wi bon Benno Bokk Yaakaar yàgg na fi yaay aussi ay ñoom buntu bi et cetera et cetera coalition ak wàllu également naka nga jàngate élection locale yéen jàngat nga ci am en résumé. ak les bu dee waaw. bu dee bu dee mhm. euh, li ñu mën a jàngat mooy xam nga élection loc élection territoriale six cent une six cent a une élection moo amoon Sénégal. ah bon. Euh, boo waaye si maanaam mooy parce que il y a six cent une collectivité territoriale dans chaque collectivité territoriale il y a une élection mhm. donc c'est pas une du nationale. Mhm. Euh, maanaam six cent une élection élection yooyu boo da da koy xaaj ñetti xaaj. il y a des élections de ville. les villes mooy des communes qui englobent des communes comme Dakar. Pikine, Guédiawaye, Rufisque euh, et, Thiès. Mm -hmm. Il y a maintenant 43 départements. Ensuite, il y a 553 euh, mhm. euh, mhm. pour ce qui concerne les villes, les, les 5 villes dont je parle, mm -hmm. il y a eu bon gagné les 4, Ben Bokoyakar gagné Ben mhm. Sur les, les départements, sur les 553, les 43, pardon, les 43 euh, départements, Ben Bokoyakar a gagné 38, le reste, vous opposition. Vous les communes, sur les cinq cent euh, même sur les cinq cent vingt sept mhm. Benno Bokk Yaakaar a a gagné plus de quatre cent c'est pour dire que dans l'ensemble c'est Benno Bokk Yaakaar qui a gagné les les les élections territoriales mhm. euh, bi ci des mooy bu fekkee maintenant dañuy jël les les les villes symboliques mhm. telles que Dakar Rufisque euh, par Rufisque ak Thiès ak Ziguinchor là aussi li lu ñu mën a wax muy dëgg mooy commune yooyu 2014 Benno Bokk Yaakaar daf ko pertoon beneen jàngat beneen jàngat bi ñu war a def aussi mooy. Mhm. boo boolee les résultats de Yewwi Askan Wi. Mhm. mel na ne l'apport de taxawu ndakaaru ak pur mhm. bëriwul parce que boo xoolee li Sonko amoon li premier tour le ca yokk bëriwul. beneen bi ñu des tey élection yi bu fekkoonte ne élection législative la. Benno Bokk Yaakaar day am majorité absolue assemblée nation bu doon présidentielle Benno Bokk Yaakaar euh, candidat euh, Benno Bokk premier tour lay jàll c'est pour dire ceci que aujourd'hui Mm-hmm. Yewwi a fait une percée. Le PDS s'est effondré, mais eh, fondamentalement, mm-hmm. la majorité électorale du Sénégal reste du côté de la de Benno Bokk Yaakaar maintenant loolu boo gisee ma di ci insisté mm-hmm. mooy damay bañ euh, euphorie bi dal opposition bi bu ñu liggéeyul liggéey ba ñu war a liggéey législative bu amee duñu mën a duñu battre Benno Bokk Yaakaar or de mon point de vue il faut il faut nécessairement faire tout faire pour que Benno Bokk Yaakaar soit battu wala même s'il n'est pas battu ñu wàññi bu baax a baax dooleem Assemblée nationale je crois que bu ñu defee lu mel noonu le reste du mandat du président applique dana mooy gën ci réew mi quoi. waaw et puis aussi euh, seetlu bi ma ci am aussi moom mooy tey boo gisee sa percée bi bi opposition bi am euh, c'est parce que Benno Bokk Yaakaar ci seen biir. Euh, il y a beaucoup de guerres intestine Je te donne juste quelques ouais, parce que j'ai même des noms tey boo demee fu mel ni tey jii parcelle euh, fu mel ni géejawaay tey Aliou dañ koo mhm. daan parce que am na ñu nga xamante ne ni ñu ngi ci biir euh, euh, gouvernement bi sax am na ñu nga xamante ne ni du joxe ay tur ñu ngi ci biir APR ci biir gouvernement bi mais dañu koo xeex ci pet de manière voilà de manière xam nga nëbatu xeex ko. xam nga Parcelles Assainies également ak feneen ak feneen également donc am na ñu nga xamante ne dañ doon jóg di xeex. Euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon euh, candidat pour am yenn gox yi te ñooñu ñoo bokk parti ñoo bokk coalition on a des noms. mais voilà. oui oui mais vous avez parfaitement raison boo jëlee par am. Mm-hmm. les trois benn mm-hmm. soo cumulé le l' ensemble des voix yi xam ne benno am na ko Guédiawaye. bu mm-hmm. fekkoonte ne élection ñooñu ñëpp dañoo woteel Alioune Ba Alioune Sall Alioune Sall mooy nekk maire ba léegi. mais da ci am ñoo xam ne wote wote nañ dans les communes pour pour les listes benno bokk yaakaar dans la ville, ils n'ont pas voté pour, pour Alintal. Ça dire que c'est Benno Bokayakar ou APR qui a battu APR euh, pour ce qui concerne la ville de, de Guédiouaï. La même chose aussi, bon, il passé la CENI. Mm -hmm. Parce qu'en réalité, bon, même au niveau de Dakar, mm -hmm. en 2000, 2014, Tahaoun Dakar a 16 communes. Mm -hmm. 2022, il y a eu 12 communes là. Mm-hmm. Ça veut dire que Benno Bokayakar a multiplié par, par Parce qu'une mm-hmm. commune là, Parcelles Assainies, c'est Benno Bakayakar qui a battu Benno mhm. Et d'ailleurs, ce qui, ce qui plus bizarre, c'est qu'à la limite, même les gens des Parcelles Assainies, xamuñu sa maire bi xamuñu sa maire bi ñu fal. billaay xamuñu sa maire bi ñu fal. c'est-à-dire que vraiment xamuñu ko dañoo jékki-jékki dégg maire. Mhm. en tout cas loolu aussi jàpp naa ne ay ay jàngat la beneen bi ma ci am nag euh, boo xam ne dama koy fàttali dama koy bokk ak waa réew mi. Mhm. dafa am loo ne mi ngi bëgg a dugg Sénégal extrêmement dangereux. mooy lan cest dire mën mm-hmm. a mën a mën a sos mën mm-hmm. a yeepit na dafa mel ne dafa nekk programme électoral parce que en réalité bari na ci victoire yoo xam ne boo xoolee ña gagné mm-hmm. seen seen seen seen affaire guerrierisme moo tax ñu gagné or affaire guerrierisme kenn du ci yor ab dëkk maintenant nag li may ñaan euh, gouvernement bu Sénégal mooy ñi gagné nga leen jàppale pour ñu def seen liggéey maintenant ñi nga xam ne aussi dañoo gagné te bokk ci opposition bi su fekkee bëgg nañoo def seen liggéey très normalement buñ jéem a utiliser les di ko def pour une arme de guerre contre le pouvoir. Mhm. suñ ko defee du ñu liggéey et ba boobaa le pouvoir sera dans la légalité. Mhm. de dissoudre toutes les collectivités locales yoo xam ne loolu dañ ko def kon encore une fois ñi nga xam ne ñoo gagné nañ fexe ba mën a mhm. l' koy jël pour di ko ñi nga xam ne ñoo gagné. waaye aussi ñi gagné nañ xam ne askan bi lañ fi nekkal mais sa bañ a euh, euh, mairie yi ñu yor wala département yi ñu yor pour di ko xeexe état bu ñu ko defee du sot dëgg la question moom mooy les perspectives pour les législatives noo gisee législatives yi. perspectives waaw man de li ma waaw li ma jàpp mooy opposition bi c'est vrai euh, euh, am nañ am na liggéey am na avancé yu mag a mag boo xam ne opposition bi def na ko ci local yi kooku c'est indéniable. Mhm. li ma jàpp nag mooy suñu bëggee législative yi percée boobu maanaam loolu ñu wax euh, maanaam essai ñu ñu ko li ma jàpp mooy il faut que ñu gën a ubbeeku c'est-à-dire que xam nga boo xoolee am na yeew am wal am wallu am am am buntu bi mhm. am na àndu ndaw la je crois que li am solo mooy ñu fexe ba am un puissant bloc Mhm. boo xam ne l' essentiel des forces les plus représentatives de l' opposition dañ ciy bokk. Mhm. je crois que lu mel noonu bu ñu ko defee néew ma man daañu gagné benn bokk mhm. waaye daañu am score bu baax a baax boo xam ne. dina permettre à l' opposition bien présente à l' nationale et je crois que loolu ñoom ñëpp war nañ cee jublu daal. voilà jërëjëf euh, Moustapha Diakhaté euh, di la gërëm di la sant ancien député donc euh, foofu ca assemblée nationale donc maa ngi lay gërëm di la sant bu baax a a baax waa diaspora ñu ngi lay sant bu baax a baax. maa maa la war a sant comme ni ma ko waxoon ci départ ba rek ginnaaw man moom politique mooy wax ak askan ak waxal askan wi koo xam ne da maa invité ci waxtaan. Uh-huh. man maa la war a sant encore une fois yéen diaspora bi yëpp maa ngi leen di nuyu. Uh-huh. di ñaanal yàlla ngeen am jàmm ak xéwal. Uh-huh. ngeen mucc ci bépp lor et puis yàlla may leen li leen tax génn ngeen am ko. dellu si waat Sénégal ñëw fekk fi réewum jàmm réewum mbégte. amiin amiin jërëjëf merci jërëjëf merci beaucoup. voilà donc mu doon Moustapha euh, Diakhaté donc euh, ñu jël tout de suite waa Allemagne parce que waa Allemagne comme dañu tàmbali ak kan bi ñu jeexale ko ak kan bi dafa am lu ñuy préparer ñoom Allemagne voilà donc euh, ñu daal di jël donc ki nga xamante ne nii donc Sarr donc Sarr bu Allemagne donc les cinq minutes de Sarr reviennent <laughs> gëj nañ gëj nañ koo jël ñu jël Sarr daal di tëjee ak it Sarr incha allah rabi kon gars yi voilà Sarr maa ngi lay ziar maa naka waa Allemagne. ah <laughs> na moon naa la Mati na naa la. namoon nañ la namoon nañ la. waa Kodas eh, maa ngi Mati waaw. Mati dañoo nekk di préparer pour sargal Lions yi à travers le président Macky Sall le mardi et mercredi. le mardi mardi bi ak mercredi bi. Mhm. waaw dafay ñëw fii. Mhm. Eh, le gouvernement allemand dañoo récompenser les trois pays yi gën a taxaw ci Covid bi. muy Sénégal Ghana ak Afrique du Sud. ah kon président day mhm. parce que daf ñoo sagal aussi parce que en Allemagne mhm. gouvernement bu bees bi ñoom ñoo jël trois pays africain ñu choisir leen Ghana ah. Afrique du Sud ak Sénégal pour monter leen ay usines de vaccination. d'accord vaccination Covid rek nag vaccination sur place. d'accord d'accord mu waaw yow xam nga man fi ma fi ma bokk ak yëpp mais ñun dañuy dem man je je je je je prends mon véhicule d'autres vont prendre leur véhicule dem foofu sargal ko won ko nekk yaa y'a d'autres lions aussi yu nekk ci diaspora bi dëgg la mhm. parce que Maty Sénégal dafa jot actuellement dafa mhm. jot mhm. que ñu bañ a yàq Sénégal qui veut pas yà ku bëggul yàq Sénégal na xam nga looy def mooy les les rebelles yi nga xamante ne dañoo guerre quatre-vingt ba deux mille vingt mënuñoo mhm. romb Senooba mhm. ñoom nag ñoo am bac nekk ay ay ay inspecteur trésor ñoom ñoo nekk ay assistant sociale comme Guy Marius Sagna je le cite mhm. ñoom ñoo ñëw pour paralyser le Sénégal léegi nag ñu ngi leen di commencé xame benn ak benn Mati Mati je suis un ancien militaire. waaw. mënuma comprendre man yow nga ne Sénégal moo la Sénégal jëndal la oto. ku nekk États-Unis jël këram jox la nekk too ci location muy Guy Marius Sagna mhm. ci lu tol ni quatre militaire dee mhm. sept ñu jàppaleen en otage waxoo ci te suuf bu yëkkatoo ñani nga wax ki ñaabuur man dëkk yooyu ci Guy Marius laa déggee tur yooyu mhm. léegi nga pare foofu noonu Ousmane Sonko bu bu muus rombee buntu këram sax mu def euh, conférence de presse mais boobu léegi déggoo dara furaas daani xidim kenn déggu ko kenn du ci wax sax du ci yee du ci yàbbi mm-hmm. Sadio Mané mi nga xamante ne il est multimilliardaire payé par Liverpool sax wax na ci mm-hmm. Aliou Cissé mm-hmm. wax na ci ñeneen ak ñeneen tout le mone en a parlé ba mu des ñi nga xamante ne ñu doon rey ak ay conférence de presse ay conférence xaw ma lan je sais pas quoi nan la ko journaliste yi di ooyee kenn buggu cee wax mais on est où mhm. Mati mhm. Mhm. man dama man man je serai là-bas le mardi et je vais dire à président je vais lui dire dinaa man sama tenue laay sol bu may dem sama tenue sapeur pour que mu mu mu mu gis ma dama koy gis carrément li ma koy njëkk a wax mooy président am na ko tudd Mati ñu koy wax Mati trois pom dama bëgg non déglu ma déglu ma rek déglu ma déglu ma non déglu ma lii sama yëf la non déglu ma ah. non man suma yëf la may ma rek suma yëf la mhm. dinaa ne ko kooku dama bëgg ni nga décorer lion yi dama bëgg nga décorer ko ko parce que ñun lu lu ñu réeroon ci jaspora bi mhm. moom moo ñu koy leeralal benn ñaareel mhm. dama naan ko président ma ne ma ma ne ko instant bii nii sénégalais il faut ñëpp tolloo parce que mënuloo aji saar doomu sénégalais la juddu Sénégal màgg Sénégal ñu def ko teg ko coono biñ ko teg mhm. mënatul dem marché mënatul dem tour mënatul dem fenn mhm. aji Sarr ci informel la bokk dafa waroon di dem tour mhm. di dem ay ndey dikkee di dem yooyu yëpp mënatu ko def donc il faut que l'affaire là ñu juge ko un président doit être fort man dinaa ko ko wax bët ak bët en tenue je vais porter la tenue sappeur allemande Mm-hmm. te dinaa la yónnee photo yi gis ko. dinaa la yónnee vidéo yi ma wax ak président incha allah. incha daal l' information moom mooy président war na Allemagne. Euh, dans le Allemagne voilà. war na dem Belgique voilà ngeen bëgg ko donc sargal voilà par rapport ak euh, voilà la coupe remportée la CAN remportée par le euh, par Sénégal par nos Lions ngeen bëgg ko sargal moom en même temps profiter également waxaale aussi euh, seen soxla ci li nga xam ne moom moo xew Sénégal en tant que ay émigré voilà donc ça namoon nañ la mati même mati même bu dee man kese la mm-hmm. même bu dee man kese la je serai à l'aéroport de Mainbourg mm-hmm. na fa taxaw mm-hmm. wax président li ma ko bëgg a wax macha allah te ni ma la ko waxee noonu laa koy waxee yow xam nga ne man moom su man benn si maa benn yoon laay tooy man tant que wanoo ma leneen mhm. yow laa gis parce que bañ la fi invité eh, bañ la fi invité boobu uh-huh. boobu métti woon na trop boobu amoo woon paas <laughs> train nga doon jël pour ñëw fii je te jure boobu de boobu dama jóge Brésil jóge ñëw Eh, Jomaay Faye tout récemment laa ko ko wax ma ne ko Jomaay mm. bàyyi leen di attaqué Mati parce que yéen ñii yéen a tax ñëpp xam Mati mm. yéen a ko doon oo di ko taggal ay maama mu ngi mel ni tey jii man suba ma ma ma ma tubërbeku mm. bugg laa xas mm-hmm. boobaa du am sance mm-hmm. mm-hmm. du am sens du am njëriñ donc nag nous sommes derrière toi dégg naa la nga ne da ngay dem Sénégal ñun nag dinañ balee terrain bi <laughs> dañoo bëgg rek xam kañ ngay dem Sénégal pour ñu participer. incha allah incha waaw pour bañ la téye lu yàgg nag. Uh-huh. Mati tey moom li may wax rek mooy. Uh-huh. nous allons accueillir notre président de la République élection passée na. waaw. Uh-huh. c'est notre président de la République. te lim fi def nag kenn mësu ko fee def nañ waxante dëgg. dëgg Mm-hmm. Ablaye Wade dafa bàyyi woon lu parewul mu ñëw yeggali ko ba pare créer leneen mm-hmm. Mm-hmm. tey jii ne mu ngi war a organiser Coupe d'Afrique am problème ñu naan Maroc lañ koy jox mais ka du ko def parce que balaa mu yegg Maroc Sénégal pare na Sénégal dafa pare sax déjà pare na stade bu bees amitié ñu ngi koy defar Demba Diop ñu ngi koy defar stade bu Thiès Aline Sitoé Diatta mais loolu mun na organiser Coupe d'Afrique waaw tonk nag kon nag ñun lan la mooy man daal li may ñaan président mooy gis nga l'affaire Sonko na ko juge mu jeex parce que un rebelle kenn du ko Moustapha Diakhaté dana terroriste mais yaade a militaire rebelles mooy Salif Sadio ak gàngooram mhm. mais y a sol costume mooy Sonko Guy Marius Sagna ak ay gàngooram ak xaw ma nan jiyi ainsi suite c'est des rebelles man maa wax nag man maa wax man Sarr Albañ ku ma saaga yaa xam. yow saaga yi de saaga takkatul kenn gars yi mis nañ saaga yi sax en tout cas merci beaucoup Sarr kontaan nañu lool léegi les cinq minutes de Sarr moom dafay daal di bokkaat incha allah dinañ déggante tey si guddi wala demain incha allah dégg nga incha allah. et puis bul fàtte ah, ku coalition bi day tas de man maa la ko waxaat nag day tas loolu dañ koy waxtaanaat loolu loolu. day tas de kenn waxatu ko. day tas waaw <laughs> ah, ok. merci ok man maa la ko wax nag. merci jaajëf jaajëf laa Lyon jaajëf. merci beaucoup kon gars yi ñu ngi remercier tout le monde ah di remercier euh, aussi Moustapha Diakhaté suñu suñu invité waa diaspora bi également Sarr mi ngi nekk ba Allemagne kon rendez-vous mardi mercredi le chef de l'État président Macky Sall day ñëw Allemagne jàll Belgique euh, donc ñoom moom mi bokkul ci biir benn bokk yaakaar beneen parti politique la bokk mais nee en tant que sénégalais dina ñëw teeru le président de la République le président Macky Sall fu mu nekk ni ak kan bi moom coupe moom moom moom ak waa fédération ak tamit lion yi loolu la yàlla dogal loolu daal c'est ça la c'est ça la réalité kon gars yi maa remercier waa CODAS bu baax a baax di ci jiital euh, Françoise Hélène Guèye vraiment ci ah euh, ngeen ma vraiment ndamu lion yi sax dañ maa jig ndaxte la bonne nouvelle c'est c'est c'est arrivé maintenant donc merci Françoise Hélène Guèye euh, du fond du cœur ma sister je serai toujours là pour toi et je sais que tu seras toujours là pour ak ci seytaane ak voilà waa CODAS gépp di remercier ñoom Iba ñoom maman Nafisatou Diallo Kulim Dioum euh, l'ambassadeur depuis que Ndiaye Lo donc Oumar Wade bëgg bàyyi kat gis naa ko fi léegi léegi maa ngi lay ziar bëgg bàyyi bi laax yëpp man dama la gëm yàlla moo def loolu bëgg bàyyi merci beaucoup Daouda Diémé aussi du may dara gaa yi waa kër Ousou Bébé yi euh, di nuyu également voilà ñun ñëpp daal Maria Mariama Odile Préra gis naa ko fi également ñoom Dija Dija Dieng euh, Yero Balde également yéen ñëpp Kulim Dioum fàttewuma Moustapha Babou vraiment fidèle yow ak sa soxna maa leen di remercier chaque dimanche il est là Moustapha Babou machallah un grand merci à toi yal na la yàlla suturaal yal la yàlla taxawu yow ak sa njaboot merci tout le monde euh, kontaan naa gars yi euh, dimanche prochain incha allah jaajëfate respect à nos lions bye bye Aliou ca kaw ca kanam sama gars yi <laughs>